jërëjëf ami internautes yu MPROD TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di am mbégte ak contentement bu mag mbokk yi ñu jàkkaarloo waat ak yéen ci biir MPROD TV Medoune Diouf laa ci àndal surtout Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ñaari champion yi ma taxawal maa ngi taxaw ak doomu bay laa taxaw ki nga xamante ne moom mooy guy gi ñaari xale yu bërki démb ñoom ñoo jàkkaarloo woon fële nga xamante ne moom mooy arène nationale le 27 juillet Amadia production moom lañ ci àndaloon promoteur bu mag bi xale bu baax xale bu yaru mbokk yi ñaari xale yi nag tey dañ ñoo waxoon wax ju rëy rëy ci jàkkaarloo bi te lan nu waxoon ak li am c'est diamétralement opposé xaaruñ ci woon xaaruñu woon ci ñoom ñaar combine te daanaka li ëpp ci làmb ji nee ñaari xale yi dañoo combine ah, combine bëri yéen ñaar da ngeen daan waxtaan dégg naa ay xarit ngeen li ngeen bëri fa bare ak làmb dañ leen a bëgg. ma bàyyi la waa nuyoo. waaw Baye Balla ginnaaw ñu sant yàlla jël jant bi di sant suma ñaari jur di nuyu waa Sénégal di ñaanal sama papa ak suma yàlla yërëm leen taxaar leen àjjana di nuyu Medoune Diouf borom improt di nuyu suma sunu waa kër di nuyu waa Malika di nuyu suma kilifa muy kenn ci man alxakim borom saraxe ma ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ak salaam combat bi jàpp na ju baax a baax di nuyu waa improt TV di nuyu suma xarit doomu Bayla di ko ci ndam li. Bayla ma baala la nga nuyoo ak ñi lay seetaan. auzu billaahi mina sheytaani rajiim jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba barke Serigne Fall barke Serigne Fall ba muy juróom ñaar yoon di sant samay ñaari waajur di sant sama yaay di sant sama yaay di sant sama yaay parce que sama yaay dafa sonn si man barke Serigne Fallou Mbacke chaque jour dama koy wax. maa ngi nuyu waa axlu làmb yëpp di nuyu Médoune di nuyu Baye Balla di nuyu Guy gi suma adversaire di nuyu El Hadj Mbaye Dogo suma xarit suma doom yaay. asalaamaaleykum. combine bi laa bëgg ngeen ñëw ci yéen ñaar lan ngeen waxante ba tey ji ak naka ngeen yebe amateur yi ak li ngeen waxante lépp ñëw. walla ku xool lamb ji xam ni combine amu si. lamb ji lu ñu si daj yëpp lu ñu foogoon barki alxuraanu amul. làmb ji dañ see daj coono. wóor na sëriñ Fallou Mbacke préparé ko combat bañ ko jàppee nag gàtt na même pas un lañ ko jàpp ñu waajal suñu bopp préparé. lu Max Mergan wax mbër bu ndaw day pare ñu man moom damaa yàgg a pare parce que ba ma gëjee bëree yàgg na depuis 2018 laa gëj a bëree wóor na Serigne Fallou Mbacké ma ñëw si làmb ji def fula def fayda sama recherche def fula def fayda làmb ji kan mooy xool làmb ji naan combine la ak lu ñu def yëpp am xeex am bëre bëre 15 minutes noppale ko ñëw ñu naan ay combine drapeau Massila le grand mara ngeen war a bëre bu rëy ba pare man yow li nga wax lépp yaakaaroon naa ne boo jàkkaarloo guy gi quatre-vingt-quinze non da koy paqueté def ko lu rëy. waaw Baye Balla def naa lu ma waroon def parce que ñu bëri dañoo ne Bayla bu duggee si géew gi day perte repère mais ku xool ne xam ni Bayla bari na def na lu ma waroon def mosuma bëree nii. arbitre da doon prip ma daw def lu may def bëree la daan la 23 secondes wala 13 secondes man loolu laa doon bëree mais tamit damaa gëj si làmb ji di doog a dugg si arène nationale bi. Moussa Khoule suma doom yaay suma xarit yàlla na ko yàlla yërëm yàkkamti woon ma ñëw si arène nationale bi ak ay konti laa la Baye Fall bi na ko suñu borom yërëm ñooñu dañ doon sonni si man fekkeewuñu lii yaa ngi dégg kon waruma juum si làmb ji noonu la demee jàmbaar. noonu la demee jël nga ay coups yu métti nag yow. waaw làmb la làmb affaire góor la moo tax su ma déggee ku naan dañoo commune sax day métti dama jaaxal parce que combat bi dañ ko jël ci ay conditions yoo xam ne dafa métti ah, man dama koy wax. combat bi ñun dañ koo jël ngir sauver làmb combat bi dañ koo bëri ngir sagal làmb combat bi dañ koo jël ngir taaral bés bi ñaara nag mbër heure bu ñàkkee dañ naan non bu waxee dañ naan non dafa ñàkk moo tax muy wax mais ñu dañoo bëri ci fulla ak fayda boo xoolee gis nga sama kanam gi ni mu neewee dama taxaw jël ay coup kon bu doon combine bu arbitre ne prip day taxaw jaar gauche ma jaar droite wala ma daw song wala ma daw song ma ñu jàppande waxtaan mais dañoo na mais combat ko jël ci yoo xam ne dafa metti man te xam naa ni ma ko jëlee mu metti nu ko raw la mettee ci moom muy promoteur bi dama koy wax. Baye Balla combat bi su ma la nee bi ma duggee ci biir stade bi lañ may doo ko jox sama restant avance est-ce que gëm. loolu mooy lan loolu nu mu mën a nekke combat bi dafa taxaw man la 15 dañ ma envoyé 75 000 ni ma am teel entendant promoteur bi ni ma jàpp ci. ma ne ko mais lii man comprendre ma lamb la wala lan la barki alxuraan xaw ma nag man xaw ma nag moom mais su ma nga laaj ko. promoteur ni ma jàpp ci man ko amul problème naa jàpp ne ma nooy sant yi nii ngir sauver bés bi ngir sauver làmb le mu dugalal ma 75000 ca laa ko gëj a dégg su ma ko woowee du ma jël ma koy woo mooy coupé ku ma dajeel non mais guy gi sa combat man ko ah, man de wax dëgg yàlla wóor ba xam dinaa bëre. ba bi ñu est moo tax nga def loolu. non arrangé mooy wu ma. ah ponkal mu toll ni yow yaa ba xam nga tey Matar Ndiaye mën na maa seede daa mën na maa seede biñ ñëwee suba la bi barki Seydina Mohamed dafa woo général Malick di wax bay jooy ni ko guy gi su bëriwul rek làmb dina yàqu. trois na bëre spécial melax ma war na bëre grand combat bi ak Fadam Senior ñun suñu spécial bi sax dafa yàqu après ñun ñu mujj ñëw sëf grand combat bi ci laa dugg si ci stade bi mu ni ma sa blouson sponsor doo ko sol man nga man fayoo ma xaalis ma koy sol man sama yëfi li ma waroo ak yow dinaa ko def parce gor laa te bi bi c'est quatre jours Alioune Sèye Junior barki alxuraanu karim gars yi dañu ñoo combat bi man dañ koo bëre Matar Ndiaye mën naa ko woo téléphone nga dégg moo génn ci stade bi dem jëndal ma protège daan di ma demal nga bëre ji billaahi wallaahi tallaahi yow ngay ñëw ngay yow ngay ñëw ci làmb mbër mu toll ni yow te indaale wu protège daan ki Seydina Mouhamed Matar Ndiaye 15 pour cent ba tey man la loolu fëtu kan la non man xaw ma ah xaw ah, man man boo paree nga laaj sama adversaire man man laa wax biñ ñëwee suba la combat bi nii ba tey ñoom ñu ngi CNG naan dañ ko bëgg a régulariser promoteur bi di ñu dimbali ñu ngir yàlla yonent bi ngeen jàpp ci nee leen waaw ñu régulariser combat bi ci la daani Matar Ndiaye comme demee na fii comme deme na nii nañ ñu waaw rek parce que ñun tamit mënuñu ko yàq ñetti grand combat yi yàqu nañ spécial bi yàqu nañ ñun ñoo fa des ñu sacrifié ñëw bëre regroupement gi yëpp dañ koo leb ñu ngi nii fi mu toll nii ay bor topp ñu ci man bokk xaw ma nag moom mu ne ma regroupement añu ma barki alxuraan ma looy jooy loolu laa doon jooy mais yéen promoteur bi ngeen di waxal ni du ko yàq lamb de. mas mas ta amel mbër dërëm de. non lu ngeen lu ngeen wax dafa garaaw lool. man man sama man man man sama restant ma sama téléphone moo woo Matar Ndiaye. jaru ko man sama restant avance mu ngi ci promoteur bi man. sama restant avance ba tey mu ngi ci promoteur bi. combat bi su ma la ne da nga bu ñu la nee am nga grand combat dañuy foog ni dañ laa fay ay millions. barke yow moom jarul laaj dara ndax yow ñi la jàppale ci combat bi ñoo bari. yow Alaaji Mbay ñi mu lim ñëpp ni ñoo la jàppale. nee naa ku la ñee du la dimbali. déedéet eh, Alaaji Mbay lim Alaaji moo lim. ma nekkee xale ba tey man nii laa mel. ku la du la dimbali Baye Balla barke Serigne Fallou Mbacké Baye Balla combat bi lu ma siy jooy noonu man maa ko xam. ah eh, eh, alaaji nee na la looy jooy ndax ñi la jàppale nga ne ko waaw dama ko doon dama doon dama doon dama doon neexal noonu rek xam nga man yow alaaji mbay maa moom suñu duo dafa neex dama doon neexal noonu mais combat bi dama see bay Baye Balla hmm. wóor na Serigne Fallou Mbacké Alaaji Mbay sama diggante ak moom du xaalis moo tax su ma ko doon toppee xaalis bàyyi naa ko yàgg na man du ma toppee nit ngir alal wóor na Serigne Fallou Mbacké parce que man foo mu fekk damay liggéey foo mu fekk nag yow xam nga lu ma lay damay gàddu sama saak ba démb damaa jël sama saak dem jaay man damay liggéey. loo jaay woon man ay bing bang laay jaay. xale yi jigéen yëpp kenn ñëpp a bill ndax ma bay laa mbokkum réew mi barki Serigne Fall. mais nee na ay bing lay jaay Médoune doo ko laaj lii bing bang. Médoune war na Serigne Fallou Mbacke bu siwee man maa ko siwal Big Bang laay jaay Big Bang produit la boo xam ni nee naa bépp jigéen boo gis léegi xam nga ne xale yu jigéen ñi boo gisee seen fes yi léegi da kontaan waaw maa ko génnee tey kër gi dëggatoo coow kër gi kër gi dëggatoo coow Médoune da nga doon romb dëgg coow kër gi jëkkër ak jabar di xuloo mais dëggatoo ko ndax man Big Bang parce que produit boo xam ne yaa ma gën a xam bu dee góor am na ku bëgg a commandé Big Bang da nga may fekk centre commercial ba. ban centre commercial. centre commercial ba maa ngi si wetu tiis iPhone. ankay centre commercial ban bu nekk fan. bu nekk marché waranka. ci booru tiis iPhone. waaw tiisaan. tiisaan app sama ménagère suma xarit. iPhone la ma laal nii nii ma wax ak yow iPhone la ma laal. moom Tidiane iPhone. Tidiane xale bu baax euh, Maydoum Diouf. lu mu la waaye koo koy Tidiane lu mu jaayul baaxul si iPhone. mais waaw numéro bi nga bi soo ma bëggee jot da may woo si 77. 812 38 47 coow dootu amati si kër xale jigéen bépp fees boo xamee jeex na boo ñëwee ma jox la fees. mais moom moom yow dégg naa sax Bing Bang nga bàkku yow. Bing Bang laa bàkku. noo ko bàkku. barki Serigne Bamba Mbacke dañoo ne laa dafa génne fecc ba bees ñu ne ko loolu lu ma mu naan Bing Bang Bing Bang ñam wal Bing Bang Bing Bang déggal. <laughs> et même et même guy gi 95. bu bees lay indi keroog. waaw xam nga loolu dafa garaaw. mooy li ma doon wax rek man du ma ki njëkk a way keroog mi dina ñëw ni ma noo guy gi ma ne ko noo li ma waxoon rek laay waxaat ku la bëggee ni man foo koy jëleet ku mën a bëree ni man foo koy jëleet ku mën a bàkkoo ni man foo koy jëleet babal lii dafa neexal lamb waa mais am promoteur moo weere rek waaye après Souleymane Faye nga indi waaw loo ci wax. mooy mooy mooy foo ko jëlee rek mais Béthio Seck laa woon. ku mën a bëree ku kuy daanoo ni yow xaw ma la foo koy jëlee. ku ku mën a bëree ni man. film bi loolu nga. ku mën non làmb daanoo mu ci. Ah? mu ci. Ah, waaw man na ko man na ko guy gi. bul yeelu nelo si man parce que loolu fa laa ko xalaatee da euh, lundi dafa jot parce que sag lundi damay def tuuru Pikine damay doo ba si yàgg di jooy. looy jooy lu waral jooy ma guy gi xam dafa wéy. dafa wëy si signature bi affaire bi def buzz ñu ne Boy Niang Gouye Gui du mën a la ma ne ko làmb bu soobee yàlla barke Serigne Fallou maay dirigé wóor na alxuraan ko bi ndax damay daw di jooy te su ma jooyee rek am na lu ne si man bàyyi ba la du ma nit de barke Serigne Fallou Mbacke. mais mais et pourtant ñoom ñaar seen combat dafa dafa neex parce que parce que amateurs yi dañ ko bëgg. combat bu am buzz la yéen seen combat jeexagul de. ñun dañoo bëri ci jom ñun dañoo xaru pour bëre xaru. non moom laa la wax il fallait que ñu dañu dañoo xaru man condition yi ma dund ci làmb ji xawma nag moom moom xëy na promoteur bi doo ko jox lépp ak mais man man condition yooyu laa dund laa dund ci lamb eh, mais condition yooyu yow la neex yow c'est pas la première fois nga bëre xam nga xam nga xam nga xam nga yi li mu wax loo wax mu ne la gara combat ngay bëre loo wax mu ne la grand combat ma ne ko lan mooy grand combat dara combat bi su ma la nee soixante mille laa si am. fayu leen naar fayu xoromam de yéen ñaar ngeen gën a bëri de. combat bi yow 2018 nga a bëri. 2018 laa gëj a bëri. Ama ja tëggal ma combat. yow kañ nga a bëri. man daaw géej laa mujjee bëree. daaw waxuñu pour saboter bay bala bay bala xam nga ñun mën nañoo médical ni bëriwuñ spécial bi li ko yàq ñaari grand combat yi ñun mën nañoo def noonu mais ngay ñëw di bëri si ci làmb di bëre di bëre di bëre lépp yaa ko defal sa bopp man bokk xaw ma moom mais man man man li ma ci li ma ci déranger mooy le jour di combat nga ñëw ba ci saat bi war a bëre ñu génn jëndali la protège-dents pour nga bëre. may def man déggoo may la barki Seydina Mohamed damay daje ak nit billaahi wallaahi munoo may guy gi laajal da baax sa gañ la sa man ah, ba biñ ñëwee suba la heure bii nii laa wax man wóoruma wax na may ngeen ci xaalis dans tout ça ñi leen jàppale kan mooy jàppale man ñi nga woo ci combat bi yëpp mais signature bi man maa taxaw promoteur bi bi ñee combat bi des na 4 jours dama dem euh, ci alhakim borom saraxi ma woo ko ni ko maa ngi ni ci alhakim dafa ma bëgg a jëndal ay bloc wax ma lu leer Ama Dia ni ma naa la waat ci kanam te laa ko gëj a dégg mais léegi nan nga demee ci autorité nan nga damay bëre bu la nee indi ay ticket ma jëndal loo koy wax ñun dañoo sacrifier pour bëri sacrifier làmb ji rek te ñëw xoolal xeex xeex bu metti bëri bëri bu metti mais làmb ji war naa mën a gën a neexee mais seen combat jeexagul ndax ba léegi dafa war a leer tëggul man bëriwu ma bu ko bu ko moo géet tëggul man bëriwuma parce que woowoon naa ko bee ba ma doon wax moo géet boo ma tëggul duma ma bëre bàyyi naa bëre barki alxuraan lii dama ko gisoon bamba woo ma nee ma bay laa sa diggante guy gi ba pare lekkuma si ñaar dërëm lu soixante mille francs mais maa ngi sant Mouhamed Ndao Tyson maa ngi sant Mouhamed Ndao Tyson parce que jàppale na ma yëkkati na xaalis bu bëri jox ma bàyyi balla lu ma mos sa foogewul si moom la ma defal Mouhamed Ndao Tyson maa ngi koy sant di ko gërëm di sant Omar Ndaw jarbaatam bu nekkutoon moom day ñaaw ndax Tyson fàttewuñu de dafa am si yu mu nekk rek te moo ngi defaraat bul faale nii. waaw moom moo moom moo révolutionné lutte bi nag. waaw am na lu bëri lu mu ci defar Medoune Diouf. maak Tyson am na bëri lu bari lu ci defar am na fu mu fekkoon làmb waaye am na fu mu ko yóbbu tey jii bari na ñoo xamante ni ci xale yi Mohamed Ndaw Tyson moo tax ñu bëgg làmb. guy gi. Mhm. seen combat dafa war a leer. no combat bi. sa waay nee na bu nee na ko bu ko bu ko. bu ko moo gën tëggul du ko. non combat bi promoteur bu bu bu engagé moo koy lamb ji dafa neex. maa kii nit ñi dañoo bëgg xam nga gars yi nañuy bàyyi du ñu jaaw ñun ñu ay comédien comédien liggéey la comédien yaa ngi am ay teraanga ñun ay mbër lañ mais tey xoolal maa moom bi dañoo def benn diyo pare xale yi di ko salanse loolu dafa neex combat bi ñëw demee nii combat bi benn jàkkaarloo lañ ci def te lool sa présentation la kon combat bi dañu bëgg moo géet ci boppam mu jël engagement tëgg combat bii nii ñu def ci li ci war préparé wu ñëpp xam na ñun dañuy préparé wu ñun bu ñu pare combat au sérieux jël ko au sérieux mais Sénégal moom Ndaka Ndakaaru ñëppay mamb si Ndakaaru ñëppay mamb si barke alxuraan ndeysaan yow léegi lan ngay wax lan ngay lan lan ngay wax sey supporter parce que supporter yi am na ci ñoo xam ni nee nañ bégunu de parce que keroog dañ doon xaar nga duma sa adversaire daan ko jël waaw noonu la mënoon demee sama adversaire nag dafa liggéey ndax xanaa def na lu mu waroon def lépp ma def lu mu waroon def waaw te combat bi nag waajal naa ko nu ma ko war a waajalee ànd seeg samay mbokk ku si mel ni ñoom Cheikh Cardinals jàppale ma si combat bi sonn si lool. dégg naa mu ndaw xaas bari la la jox. mu ndaw. Modou sama xarit la sama doom yaay kooku maa moom sama diggante moom du euh, ay xaalis ku si mel ni Cheikh Four jox ma xaalis bari ñëw taal otom ñëw ba stade jënd ay butéelu kireen ñoom trois si ñëw yëpp indil ma ko. yaa ngi dégg Alaaji Mbay jaara suma doom mama na fi. ndeysaan alaaji mbay dogo. alaaji suma doom ji mama na fi ndeysaan kooku dama ko wax rek jooy mama na fi ndax dafa maa bëggal boppam te yàlla tax mama na fi su ma ko wax sax dem lu may sentir. barki alxuraan ndax bëgg moo ko bëgg wóor na Serigne Fallou di sant sama waajur nag sama yaay Baye Balla sama yaay daa jaay oram ba deseetul or te lamb ji laa bëggoon jënd ko or barki Serigne Bamba Mbacké di wax nag sama gaay yi ma nekkal fule Ndar. Coly Faye combat bi desee see sonn barki alxuraanu karim Feu Rouge combat bi desee see sonn ñoom Cobra dëgguma de ñoom Zé yaa ngi dégg ñoom Bullal Bullal surtout maa Bullal ba may ñibbi dafa maa yëpp paate mel ni maa ñoom ñoo bokk écurie te ñu écurie ñoom 12 ans sama adversaire ñun ñëpp ñu bokk fu ne ñoom Jamso yaa ngi dégg gaa yëpp ba may dem ñu yeb ma ñoom Maguette Thiam ñoom ñëpp ba may dem ñu yeb ma ne ma bay laa demal ñëwal. boo ñëwee mooy loolu mais maa ngi dem maa ngi dem maa ngi ñëw nii nag dama bëgg nag ñu boole man Mansour fay pour mu jàppale parce que Mansour fay ku baax la dama bëgg mu jàppale ma mais su ma ñëwee ginnaaw raay ma ñëw ginaaray di wax euh, Mame Diarra Fam nekk jigéen ju baax honorable député jàpp na si combat bi laay Diop yaa ngi dégg Pape Ñambe Pape Ñambe ba may ñëw nii rek am ñambe daa xaalis bëri jox ma. sa nit ku baax te yow madame la maire madame la maire. Ndiaye Fane Ndiaye. ba may ñëw mu toggal ma yaasa ginaar. doom ji Fatima defaral ma jus yoo xam ne man damaa tiit sax barke Serigne faalu Mbacke maa ngi koy sant di ko gërëm di gërëm sama rakk yi ku si mel ni benn ñu naan ko paaye bu sonn si combat bi dem jël billet yëpp dem jaay barke sëriñ Fallou Mbacke taxaw si combat bi maa ngi sant ñëpp aatu mafia bi yëpp maa ngi leen di sant mafia marché waranka bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm bàyyi baalo combat bi daal maa ngi sant ñëpp ñoom Khadija mais du ma nag sama xarit sama jigéen muy Aïda Bey ñoom yaama leen yaa ngi dégg mari séeri yu Aïda nekk jigéen ju mun góor yëkkati xaalis bëri jox ma ne ma defal open press daf maa tuuse booy boobu yal na ko yàlla jàppale may ko jëkkër ju baax barki Serigne Fallou Mbacke yàlla boom dara lu muy ragal Aïda Bey Khadija Khadija Khadija ku baax lu mu jaayul baaxul centre commercial bi man bu ma duggee place am damay foog ni France la ne Khadija Tima Khadija mu Saliou Tima chaque jour mu jox ma junni ne ma ndékkil Tima combat bi nag wóor na yàlla nag barki alo am naa ñoo xam ne dañu jàppale si wàllum lekk parce que man damaa bëgg lekk Baye Balla Baye Balla da lekk te defoo résultat ci combat bi. combat bi def naa si résultat Baye Balla sama adversaire daa liggéey pare na. Ah, kon bi nga ko nga. non pare na bu fu ma naan liggéeyoo mais combat dama bëgg nag moo gét tegu ko ñu leeral ko. combat bi nuñ koy tëggee ak ni ngeen taxawee nii. lan la wax waxu leen fi dara lu leer yéen ñaar. lan nga bëgg ñu ah waxu leen fi dara lu leer mi. non ah ñoom ñaar dañoo da ngeen a war a wax. mangum dañuy bëri da ngeen di wax. non mangum dañuy lamb ji dafa war a leer. moo gee day tëgg lamb ji. moo da koy seetaan Pape Souleye Bathily da koy seetaan. waaw da koy seetaan combat bi taxaw léegi. waaw a a man pare waat naa. man pare naa barki bu pare pare naa. barki avance guy gi la. billaahi wallaahi ma ko dem Ndar. barki Seydina Mohamed boo nee sama avance léegi ma barke ko yóbbu sori na de ndar. ndar laa jëm fa lay préparé léegi ndar. Eh. alaaji su bu baax mi moo ma jàppale. siise ñoo ñoo ma jàppale. kolifay Faye non Ada Fass da see dal de mais Koli boo ma tee combat yàlla na ko yàlla may ndam. combat bi da see sonn barki alxuraanu karim man dënk naa sama bopp Koli jamono ji ah Koli Faye. Koli Faye na ko yàlla taxaw barki sëñ Fallou Mbacke. combat bi dafa taxaw moo gën. man pare naa barki alxuraan bu ñu ma indi woon avance bi léegi ma jël ko jaar nii yóbbu ko Malika. barke alxuraan. ah mais mais mais mais lii tamit lii ñii man ñu xàmmeewu ma leen sax tey ren tey man dama leen xàmmeewul ñaar ñii ma fekkoon arène nationale keroog ñoom ñaar la ñu waxante tey ñu mel ni ñu ñu sotti ay ay baaru galaas. na delluwaat si lu si ba muy wëy. dama ne la nga waxoon ma bëgg ma delluwaat ci. pour wala li man ragaluma la. barke Seydina Mouhamed. lan laa ko wax di woon. ma ñëw Thione Seck wala ma ñëw Souleymane. Thione Seck bi nga nga indi woon ci signature bi. ah ci laa ko doon rendre ah. lan laa la wax di woon. Ah, fàtte naa ko fàttali ma ko. Dóor Yemiti. fàtte na ko Dóor Yemiti. laa ilaha illallah kenn du ko jege. Dóor Yemiti ma la bu si wéyee ma delluwaat ko ma ne ko du ma ki njëkk daan. Ah. bay laa du ma ki lay daan. yàgg na ci ñi may daan te ba tey daanu ma. xam naa li te wóor li ma wóor te wóor mooy yow la ñuy longu le 27 heureusement kenn longu ma da jaar nii ma jaar na longu nañ la nag parce que ko ne Baye Balla ma ne ko Baye Balla Silane ne ma ne ko guy gu juum nga man damaa dox dem dem ma ne ko juum nga ma ne ko diriger la mais bu jour ba maay diriger xam nga ko. lamb song jam kan moo song. nañ mu toll nii yor loxoom song jam kan moo song dama ko. waaw mu sifflé dafa mel ni guy gi moo diriger de. man maa ngi mais non non non bi yëpp doomu bay laa moo boo bëggee ñu dem vaar. boo bëggee ñu dem vaar. bul dem vaar boo bëggee ñu dem vaar. bay bala ñu dem vaar. combat bi yëpp boy bi moo ko diriger. barki Serigne Fall boo ñu dem vaar moo ko diriger moo xeex ak moo la dëggoon ma la lu la daanu ma parce que da ma <laughs> daan ma daan ma ku songu xoolal ku songu xoolal ku songu ku daw jël boobu ngeen dem faar wàññil micro bi xoolal ku daw xoolal ku daw merun sumal merun sumal merun sumal merun sumal merun sumal ardal sa loxo merun sumal mérun mérun ku song mérun ku song mérun ku song eh xolol xolol xolol xolol yi xolol yi mérun ku song mérun la na saako lii eh, boo dawul woon eh boo eh, dawul non doo cinq cinq avertissement mais su ma mu dóor ma génne ma saako cinq avertissement yow seytaane nga su ma dawoon mu génne ma saako yi noo def ba cinq avertissement te dafa ma jaay xelu mag parce que ci làmb ji ah. certes délibéré taw jël ko su ko jëlee. aywa damaa diis diis xoolal bi ñaari junni laay lekk chaque jour ndar. taf taf waa taf taf maa ngi leen sant barki Serigne Bamba taf taf alxuraan alxakim borom sax dama jël en charge billaahi wallaahi tallaahi combat bi dama cee am ci wàllu lekk rafetaay ma loo xam ne musuma ko am sama combat bi. c'est que waa taf taf ma ndar maa ngi leen di sant di leen gërëm ndar bi fa laay dugg chaque jour bàyyi bala chaque jour 10 000 laay yàq gars yi ne ma da ngay yàq ma ne ko yàqu ma sama biir nee naa biir bu doon sañse kenn daa ko maa sañse àdduna barki dëgg combat bi combat bi nañ ko dëgg lii dafa neex ndakaay nañ tëgg combat bi non lii dañ koy tëgg barki alxuraanu karim nañ ko war di wax ñamboo nag combat bi dama bëgg a ñëw France préparé ko fa kan ñamboo suma doom yaay moo ngi France combat bi taxawagul nga naan waxu dëggoo lu ma la man damaa gëm ni day tax waaye moo gét yow dina gis lii te du taxawal combat bi alaaji mbay buuse gënu ñoo neex barki alxuraanu karim dama ne combat bi France laa koy waajal dama bëggoon États-Unis mais dama koy bàyyi dem France préparer combat bi. dama bëgg nga xaar wax te xam ni maa ngi ñëw France léegi barke sëñ Fallou. guy gi jaral na xolam xolam mbooloo mi ni mu bare. te waxtaan nii rek xolam mbooloo mi. lamb la xam ne amateur yi ko bëgg na gars yi tëgg combat bi ñu leeral ko voilà ma sant. santal man damay sant. ki ma eh, eh, drapeau ma sil drapeau ma sali ma sil la Diop nga jël voilà maa ngi no wax no ma pare bi da nga ci am maam ci non dama mais mais xaar mooy xaaral rek non da ngay non day wax ma wax ci parce que drapeau bi ëppalewu ma ci ëppalewu ma drapeau bi foo ko danga maa daan danga maa daan. non day wax ma wax. waa léegi eh, léegi wax na ma eh, la ko jox. waa drapeau bi nag ko joxee. non man maa la ko jox ma jox la. waaw maa daan waaw loolu la bëgg si la ma nu ma daanee nu ah, day daan. du daan mais ma mais sant. may gërëm bu baax a baax. Massi la. Massi la. l'homme social. l'homme très charmant. borom xam-xam bu yaatu bi. baax lool. lamb ji Massir la barki alxuraanu karim bu ko nekkoon ni man maaraala mais day ñëw ci lamb ji di ci jàppale keroog dañ ko tuddee suñu journée bi ñu déggoo man ak moom ma koy ñaanal mbokkam moomu xawoon na am jafe-jafe yàlla na ko suñu borom jàppale te heureusement sax yàlla suñu borom jàppale na ko ba mu ci jàmm salaam looloo tax ñëwul ci lamb ji ma koy nuyu baax a baax di ko gërëm Massir la dinaa ñëw damay wax non xaaral ma sax na pare ah sa waay yóbbu drapeau da ko bëgg kii eh. loo yóbbu drapeau bi. non drapeau bi drapeau bi ëppale wu ma ci. waaw sama drapeau non drapeau bi ëppale wu ma ci. Ah, bul xotti bul xotti drapeau bi léegi ma sant may sant bu baax a baax waa Malika. di gërëm waa écrit Malika mbooloo. jàpp nañ ci bu baax a baax a baax ñu ma gars yi su ma tuddee ñoom général armée booy Malika ñoom bulldozer waa écrit benn baraag bi nuyu naa ñëpp di nuyu sama taw bi da baax mbuub xam fu ma jëm ak man di nuyu suñu waa kër di nuyu nag alxakim borom saraxi di nuyu alxakim borom saraxi bu baax a baax a baax combat bi Côte d'Ivoire la ko fekk mais jàpp na ci bu baax a baax a baax di nuyu nag Aly Ngouille Ndiaye di nuyu Sayer Ndiaye borom Ria moom mu ngi naan France mais xam naa ne bu ñëwee du wax baaxul mais damay ragal mu ñëw ma recevoir ko biir France parce que Sayer ne na ma combat bi waxtaan naak Aly Ngouille ba pare dañ lay defal invitation nga ñëw préparé ko fa di nuyu Vieux Mandiek bu baax a baax di nuyu Koumbi Saliou Ndiogi suma maman di nuyu képp kuy bëggee guy 95 di nuyu waa TikTok bi di nuyu Instagram bi di nuyu follower yëpp nag sama benn jigéen bu baax a baax koo xamante ni day jàpp sama combat muy la diva borom Sali combat bi barki alxuraanu karim xaalis bu bari la ma may borom tiktok bi xale bi xew jamono xale bi tey jamono. man kay xam naa da ngeen di sàqatu rek waaye combat bi am ngeen ci combat bi nit ñi dañoo amoon yéen a jàpp ci mais xaalis jógewul ci promoteur bi. kii 60 000 la ma promoteur fay. yow ñu bàyyi la nga sant yow tamit. waaw maa ngi sant France yéen a ngi naan François bu ngeen demee fekk fa ku baax Alioune Badara Fall. mbokkum day Baye Matar Fall ak Dame Fall. ma nga ca Paris nit ku baax ca porte Clignancourt. am naa ko ma fàtte de kooku rek ma dese. Diamalaye House Couture. ma koy sant bu baax a baax sama mag jooju. ñëwal. waaw di sant suma papa bu ju nekk euh, fële euh, ca fii nii waay Casamance Bayla di nuyu waa Bayla bi yëpp combat bi yëpp dañ see jàpp waa Diofior waa Thialane sama dëkk yaay parce que man sama yaay séeréer la. dama bëgg ñu xam ni rëg-rëg bu ngeen di jàppale ëppale wu ma si caalaan man caalaan laa dëkk sama yaay caalaan la dëkk dama bëgg waa caalaan di ma jàppale. yow nii imaam Abdourahmane Thior imaam imaam Thior ndeysaan kooku sama maam la sama sama sama maam la imaam imaam maa ngi koy sant di gërëm di gërëm Pa Abbas di gërëm sum papa combat bi sonn na si lool yaa ngi dégg sama rakk ji bébé fa suñu caatu kër ndeysaan combat bi da sa sonn sama jabar juñ ma denceel kër ga ndeysaan dañ may waaj a may soxna yaa ngi dégg Marème di gërëm suma tooma yaa ngi dégg di gërëm suma yaay bu baax du ko fàtte mukk di gërëm sama mama sama rakk ji mama Faana yaa ngi dégg di gërëm suma rakk ji benn di gërëm mamu di gërëm suma tànta bi ju nekk euh, taaxadi yaa ngi dégg parce que man maa daan maa daan da ngay déglu maa daan waaw di gërëm ñoom ñëpp yaa ngi dégg yow ma mënu ma laa dàq yi ngay daw ba pare bëgg naa ma léegi yow gis nga bii di ñëw nag mooy gën a de da yaru wala bul yee tamit yu yer si ma parce que nee naa man du ma nit déglu ma déedéet ku bàyyi bal la 2012 nga gëj a bëre ñëw stade perso repère nañ waxante dëgg barki alxuraanu karim bàyyi bal la bàyyi bu dof doole bu yarul bu yarul bàyyi bal su yarul moo jëli buuse bu yarul mu jëlee bu yarul mu jëli buuse boo demee fekk fa maa may mbasiri de mbasiri maa may yow moom yow yow Baye gi yow yow sama sama gars. en maa ngi sant ñëpp di sant waa Malika di sant waa Pire non. neel doog na bàyyi bi mbangi da ko yàq li a métti mooy Alaaji Mbaye koy ni nga mu daan. ma victoire nag victoire bul saltel victoire. man sama combat ak jin bu yoof dama ko dóor ba muy bëgg a dee mu ma xam nga kii na ma su ma neexoon triché. mbëkk bu yoof bi ma mbëkkee drapeau mbay seen wëndeelu jimbu yof bi ma joxee victoire damaa pare drapeau bi du ma topp parce que man gor laa combat bi du ko préparé ñu may jox drapeau ma koy yóbbuwaat ci ay mbëkk man xam na laa xam jàpp du daan toog sa kaw arbitre bi sama loxo ma yóbbu drapeau ba mais drapeau bi ëppale ma si la mu jël xool xun kii damay laaj ndax la kii nan jox ma sama jël man may jooy ñu ne ma bay laa lan ngay jooy may jooy adduna ak may laaj nag bay laa looy jooy alaaji may dégg eh, ñi la jàppale nga doon jooy loolu. jooyi ma loolu. alaaji moo ne la gauche droite moo la jàppale. ma ne jooyi ma loolu ne la Thierno jàppale. gisuma ne la Isaaxa Diop moo la jàppale. ba tey gisuma gisuma ne la Bayla du loolu ngay jooy. jooyi ma ne ko waaw loolu laay jooy. ma ne ko jooy mais lu may jooy maa ko sama yaay laay jooy. sama yaay ay ooram a jeex deseetul oor ndax man. Baye Balla loolu laay jooy Baye Balla. ah loolu ngay jooy dégg nga li muy jooy yow looy jooy. dina nax man li may jooy kay mooy arbitre siffle rek geneen tëgg combat bi ma jàpp ko duma ko man loolu rek laay jooy làmb ji dafa war a leer di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di nuyu Médoune bu baax a baax borom importe moom xeebul kenn di la nuyu Baye Balla di nuyu waa làmb ji yëpp di wax ni man combat bi képp koo xam ne bëgg nga ko tëggaat wool Matar Ndiaye léegi léegi léegi ma jël ko di nuyu alxakim borom sarax di nuyu jàmmalaay xaw skuti di nuyu waa Malika daa keroog oto yooyu nga gis si combat bi yëpp daaw Doussoumaré moo génne xaalisam barki alxuraanu karim génnee ko nu ma laay faal demal nga bëri ji man fexeel ba na nga dem bëri ji jàmm ak salaam rek ngir am ndam. mais Cheikh borom seex moom moo indi ak otoom. Cheikh moom moo indi ak otoom Cheikh buy peinture si oto yi wóor na sëñ Fall moom moo indi ak otoom. gaa darma ñoom seex Four ñoom Zal mafia bi yëpp darma ñoom laay warga yaa ngi dégg ñoom Cheikh Baara nee naa Tidiane iPhone kenn du moom nee naa lu ma sañse moom la. nee naa soo bëggee iPhone bu baax demal seet Tidiane. centre commercial ba ne marché Waranka boo demee mu jox la ay fan yu baax. yu mucc ayib kooku ay débéy. ay débéy nga ne ko am na. ko doon jàppale sànq jobam presse bi te amagul jëkkër jox ko sama numéro waaw man pare naa kooku jëkkër ju baax laa ko noo baaxoo dama koy jox eh, eh, eh, jërëjëf euh, mbokk internet yi ñu ngi leen di bëggee gis ngeen guy ak doomu bayla ñoom ñaar seen combat jeexagul de gars dañ koy tëggaat parce que dafa war a leer il faut jël am wëlbit gàng lañ ci soxla wala dóor mu daanu te loolu incha allah rabbi xam naa ne promoteurs yi bu nu seetaanee lii dinañ song léegi combat bi ah jërëjëf Tidiane App ñu ngi lay bëggee bu baax Tidiane Diouf bokkum ndeyu Imam Abdourahmane Thior ak Landing caare Pape Fall ah jërëjëf Saliou Guèye Moussa Adjara Seynou bu fay Saliou App moom tamit ñu ngi koy bëggee waaye Medoune Diouf kenn du yow yàquloo réew mi benn yoon yaa ngi def lu baax ci réew mi yal na yàlla def jàmm maa ngi leen di bëggee di ñaan jàmm ci réew mi nag yàlla na ko yàlla dogal ndax jàmm ci la lépp xaj ñu ngi jëm ci élection législative dimanche le 31 juillet ku yebu rek ñaan jàmm ci réew mi jàmm njëkk ci te jàmm mujj ci ndax jàmm góor gu baax góor gu yiw góor gu tedd ne woon na looy am ci àdduna te amuloo jàmm bu lay boo jaay ko jënd ko jàmm te njaboot jàmm mooy mbokkam nanu ñaan gaal gi mucc bu gaal gi muccee ñun ñëpp dënanu mucc ñu ngi leen di bëgge bu baax wan loowu jaa ngeen jëf